salaamaaleykum waa adduna salaamaaleykum waa Sénégal kii nag ku ko gis xam ni mooy soxna si Kara Mbodj ndax ku gis ni mu yànjee nii ak ni mu naayee ànd ak mbégte ngeen xam ne tey mbégte rek la àndal soxna Fatou ñu doon laaj tey noo gisee seen bis bi ak Kara mi nga xam ni tey moo waral lépp yow moom ak seen gan gi gan si leen nii. man moom franchement kontaan naa trop si bis bi. tamit maa ngi remercier Serigne Modou Kara déplacement bu mu def. ndeysaan moo tuddoon sama jëkkër tey mënoo tudd suñu doom te maa ngi ko ciy remercier bu baax oh. am comme ni ngeen gis si moom rek taalibe yi ngeen gis si moom moom laa gis si moom. ndeysaan franchement on va mënuma wax lu bëri si moom parce que sama xol dafa sedd bi. ndeysaan loo wax rek juum. dëgg maa ngi remercier tamit samay borom. samay njëkkee ñu baax. jàppee ma comme seen doom. comme seen i rakk. donc kontaan naa trop ci bés bi. te lu ñuy ñaan rek mooy yàlla ma ñu gudd fan yokk ñu sutura. te rafal leen cat. rafal ñu cat musal leen ci seytaane. <laughs> incha allah ñun ñëpp ñu bokk incha allah te xale bi tamit màgg bay teral ay borom teral ay njëkkeem teral maamu ak turandoom. ndeysaan ah ndeysaan borom tur bu neex bi. ndeysaan Mbacke Aram. <laughs> Mbacke Aram kontaan nañ ci bu baax <laughs> waa léegi looy wax ci sama xarit sama doom yaay Kara. ah Kara moom maa ngi koy remercier di ko gërëm di ko sant. sama hmm. xarit la sama partenaire la. sa xarit la gis naa loolu naa loolu man gis naa ne léegi nekk <laughs> mi ngi mel ni du sa jëkkër sa xarit la <laughs> donc li ñuy ñaan yàlla rek mooy yàlla bañ a dugal seytaane suñu diggante. amiin yaa rabbi loolu la ñuy gën a ñaan bàyyi ko fi. amiin yàlla gën a bàyyi ndax Kara xol bu rafet la dëgg la balaa muy xalaat boppam ñeneen ñi lay gën a xalaat. barke Serigne Bamba jàngal. ndeysaan gis naa différence ba avant ak après. dëgg la am na yu bëri daf ma ko jàngal. Mhm. ma màggee moom. ndeysaan donc ma mën a def ko te gën ko jàppale. ndeysaan te bu yow na nag man xam naa loolu man xam naa ni Kara yow rek la am <laughs> te yow rek lay mës a am. incha allah yàlla na yàlla lafal cat amiin leen gudd fan ak wér defal seen doom ji mu màgg ci jàmm amiin bañ koy muur muy sëy ci barke Seydina Muhammad amiin amiin kontaan nañ soxna Fatou